bis bi nga xamante ni si tey nii Allo Dakar dafa déplacé wu ñëw fii nga xam ni mooy kër soxna Momy Kébé moom Serigne Saliou ñu daje fa kenn koo xamante ni si Wolof Njaay dafay wax nii bu ne nit baax na dañ naan mbokk yaa ko baax soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo fay. mën nga ñoo wax sa tur présenté wu lan moo tax nga ñëw fii ci kër gi. Ya, man dafa Sakho laa tudd. ken tage mooy sama yaay ken at ablay tagge ño bok nday ak bay momi nek nekk sama umpaañ ju bax ablay tagge nek sama nijaay. motax ma ñew di dal fi depi mun eh, sey ak momi ba ñun fi lañuy dal parce que momi mo ñu yaatal. ubbil ñu ay buntam. suñ ñewé ñun ñëpp mu dalal ñu ñii ñëpp xarit lañ. momi nek nit ku bax nek nit ku fonk sama yaay. ndax defal na sama yaay loo xamante ne nii man mii di doomam di taawam defaluma ko ko muy yóbbu ko màkka ku la wanaleeg seydinaa Mouhamed moom munoo koo fay. sama nijaay tamit nekk nit ku baax bëgg sama yaay teral ko teral ñu ñun ñii di ay jarbaatam kon dañ li ñuy def mooy di ko ñaanal seen diggante bi yàlla yàggal taxawaay bi lafal leen cat yàggal leen fi ñu fekke seen njariñ njaboot gi yëpp koo fay sama xarit la xaritu sama xarit yi la. a sama yaay ñi muy àndal ñëpp bu ñëwee daf dinañu dalal dinañu toppatoo jox ñu sunu néegu bopp ni bu jot mu ñëw ubbi lekk ngeen naan ngeen nangoon def ak màggal gi kon moom mi Kébé mënuñu ko fay. moom mi mënuñu ko fay kii di jarbaatu laay Tage mu baax mi ngor si nga xamante ni si ba mu ànd ak euh, soxna Moumi ba tey mu ngi jàpp soxna mi lu mu def ci moom rek def naa ni ci nijaayam la ko gis muy doomi ajaratu kenn tage waa Daba. gis nañ ni maanaam tey boo ñëwee Touba màggal gi ñëpp ni kër soxna mu Kébé ci yéwan gi ak dal gi ak bëggub Serigne Saliou bi maanaam secret boobu nga xam ne tey ñëpp gis nañ ñëpp ñëw lan nga ci mën a teg yow. ah li ma ci teg mooy euh, moom mi moom moom Serigne Saliou la. fa tege di faa fa tege Serigne Saliou ñun tamit suñu ñoo juddu màgg fekk suñuy waajur bëgg sëriñ Touba. kon ñun amuñu lu ñu lu bëgg Serigne Saliou bëgg sëriñ Touba moom mm-hmm. mi nekk nit ku baax bu ñëwee këram gi. doo fi nekkee lu dul taalibe at euh, màggal gi la fi indi jàmm at salaam kafre lekk naan vraiment nit ku baax la kon li ñuy def mooy di ko sant di ko gërëm. parce que euh, dal dafa metti am ay gan dafa metti màggal gi dafa yàgg nit ñi dañuy ñëw ñetti fan avant ñu dalal dina ñu may jàmm dinañu may salaam mu ngi kaf mu ngi ree kon nak li ñuy def moy sant ko di ko ci barki serigne Saliou di ñaanal nak di ñaanal yalla may ko gudd fan mu yàgg koo teewee moom njabootam yépp jërëjëf koku mo doon nak Daba saxo ni doomu kenn eh, tage Daba jërëjëf. وقبل